metti na moom ma ne ko metti na moom si koo xamante dala tàggu ne la maa ngi dem defi 24 heures waaw man daal loolu la ma tàggu ne ma maa dem defi 24 heures mu dem fajar dem defi ma toog daal ñu wax ma daal ñëw si wax ma nouvelle boobu mu nekk nouvelle bu metti bu tiis ndax dafa mel ni fan yooyu kuy tàggoo mu nit leer nañ su jour bi mu waree dem si guddi gi mu ne ma kaa ñu waxtaan fekk ma dem suñu kër sangu rek dem suñu kër mu woo ma ne ma ñëwal laab sama doom bu ndaw bi kaay nga laab ko ma daw ñëw mu ne ma dama lay nax demul douche dama doo ñëw nga ñëw nga toog ak man nga waxtaan ak man mais sangu nga ba pare ma sangu ba pare nga ma fiy bàyyi may jàkkaarloo quatre murs yi ak télé bi ñu toog di waxtaan ñuy waxtaan su lu bari nag. muy waxtaan ak lu mu musul def ci lu bari di waxtaan ak lu doy war ma naan ko yow li ngay wax sa wax yi ngay wax ni wax musoo ko waxtaan man mu naan ah nit ngay waxtaan ak say fami di waxtaan nit ngay waxtaan nekata bu daf ma doon tàggu daal muy doon tàggu pour dem waaw loolu daal laa am ci moom mi ma fekk fii maa ngi toog man ak yaayam ma tëdd fekk ma toog xaar ko xaar ko ba une heure ñëwul di matin ma daal di xool génn si mbir dama xool ci àngal gisuma ko ma tëdd ma yeewu ma dem si yaayam ma ne ko ah baag da ñëwul te def 24 heures heure bi waroon na fekk mu ñëw yaayam jël téléphone am ne ma nañ ko woo ñu daal di woo ko jotuñu ko ñu woowaat ko jotuñu ko mu mel ni dama ko sentir ma yëkkati sama mat la bi wéer ko tëdd si moket bi tëdd tëdd bëgg a jóg dem jaayi mënuma jóg ba ay deux sama ñaari doom yi ñëw ma ne dugal leen si paan bi di leen bomb xaritu benn xaritu yaayam ñëw ñooma ma kaay nga xool xanaa yëgoo leen lu xew gaal ñoom baag bi dafa suux ma ne ko ah kon de baag dee na mais bi ne ma buy wax loolu man ak yaayam ñu daw dem géej ñu dem bi ñu demee gisuñu ñu fekk fa nit ñi waaw ñoom ñoo ma ñëw fii toog julli ñaari raak tudd yàlla toog ñu ne ñu ngi leen di seeti bi ñu demee nag ñetti gaal yi dem seeti leen kenn gisu leen. xam ni daal loolu la yàlla dogal yàlla moom lu mu namm si jaamam rek danga koy nangu lu mu la teg tamit danga koy tegoo nangu ko fii ak àjjuma bu fekkee ba jeudi ba àjjuma gisuñu dara àjjuma ñu saraxal leen waaw loolu daal mais ba léegi gisuñu dara amuñu si ñoom dara waaw kenn ki rek moo génn mu nekkoon ku jàmbaare mu nekkoon nit ku baax bëggul kenn ku am lu la metti buggul kenn koo xamante ni dañ lay néewal doole wala lu la metti buggul dara waaw xol yor nag xol bu rafet xol bu rafet la yor bëgg ay njabootam di daw ndax njabootam loo ko wax mu ne na sama njaboot sama yaay sama njaboot sama yaay sama njaboot ñoo tax may may may may daw waaw waaw nit man daal li ma mën a wax daal moom nit ku baax la waaw yal na ko yàlla cat daal bu mu ko jit si bàmmeelam yal na ko yàlla xare na si barke yonent bi yal na ko sëriñ Tuubaa si barke weeru koor bu baax bii mu dem